mais Dieu fait bien les choses ah Kajoor moom day sage tranquille mais pap day ruube daal. yow Saal yow Saal ñu nuyuwaat la bu baax a baax bàyyi la nga dugg ak ñun euh, ci thème bi nga xamante ni tey fas yéene nañ ko waxtaanee. waaw maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax a baax di nuyu Abdou Assis moom ndeysaan vidéo yi ci njariñ yi ñuy joxe fii moo koy monté di ko dugal ci TikTok. su ma tuddee aaya alxuraan day indi aaya bi nit ñi ki koy dégg mën koo jëfandikoo ma nga ca Italie maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak soxna Asso di nuyu boroom xam-xam bu mag maa ngi ko bàyyi dee bu Touba mu leen di topp sa soppi te xamoo ko. koy nuyu muy sëñ Abdourahim ko bu baax. di borom xam bu mag maa ngi bu baax di ko siyaar di siyaaree sama waajur wu góor Cheikh Ibrahima Khalil Niang. waaye tey ñu indi secret boo xam ni secret boo xamante ku ne mën nga cee jariñu ku ne nit kuy dox ci kaw suuf rek kayfeyaat bii may joxe soxna ay Aïssa <coughs> mën na cee jariñu te su ma ko waxee di nga xam ni njariñ la lu rëy rëy rëy loo xam ni nit sol na ay dàllam dem ci ay dëkk ñàkk alalam ju bari te taxul ñu jox ko lu toll nii darajaam mm-hmm. mag ñi daan ko woowee sekere lumu lumu. lumu lumu. waaw lumu lumu sekere bi lumu lumu la tudd maanaam day dox ci lépp lépp lay saafara. Mhm. ci wàllu yaram li tàmbalee ci wetànk ba ci karawu bopp lu ci am jafe-jafe rek ci doomu aadama bi njariñ lii may bëgg a joxe ci alxuraan da koy saafara waaw mag ñi li tax ñu koy wax lumu lumu nit ki bu mosaan a jàmbat dara ñoom dañ ko daan garde dañ lu mu doon bu nee la lu mu lu mu nga ne nangam nangamam lay jàmbat ñu jox la ca nga def ko wér xam nga lu mu dul faj dee. dee la dul faj. waaw dee waaye lu dul dee rek mën na koo faj te loolu sëñ Tuubaa ko huwa sifa min kulli alxuraan mooy saafara bépp jàngoro. da ngay bind fatihatul kitab muy alhamdulilahi rabbil alamin da koy bind cent onze cent onze waaw mhm. nga bind ayatul kursi yu cent onze bind falaxi cent onze ba yu jeex mhm. nga bind naasi moom it cent onze ba yu jeex mhm. nga bind wasamaahi wa taarixi cent onze yu jeex bu ko defee nga bind xaatimu Suleymaan par benn benn xaatim bi par benn benn ba muy cent onze soxna Aïcha hmm? loolu nga def ko saafara lépp lay lépp lay faj lépp waaw nit ki boppam di metti bu ci asee def ci boppam mu sedd nit ki biiram di metti su ko naanee biiram dana wér nit ki yëg ay jafe-jafe ci yaramam wala ay liggéey wala lu mu mën a doon ci yaramam bu ko bu ko sangoo dana wér. day faj ngóor a teg. non non jafe rek lay faj eh, du faj wàllu ngóor waaye comme ça tawat. ci yaram waaw tawatu yaram daal feebar xeet yooyu yëpp lay saafara moom. Hmm. mag mën na mag mën na koo jëfandikoo ndaw mën na ko doo jëfandikoo du ànd ak dara léppam lépp alxuraan la ngóor dinaa la jox secret bu am am solo. ñi nga xam ni bari dañ may message naan ma waxal yaa oustaz muy insister ci ngóor a keng waaw dëgg la dëgg la ndax ñu bari fu nekk mm-hmm. nii maanaam dafa xew daal waaw. Mm. lu ci bari nag ci dund gi la. Mm. dinaa ci ñëw émission spéciale. loolu dana am solo ah, su ko defee. Mm-hmm. Euh, lii nii képp ku la tëkku maanaam mel ni ku jékki-jékki ne la paab yow di xam ni maag yow la te defoo ko dara. Mm. léeg-léeg nga tëkku nit wala nga soxore nit wala nit ki di nekk ci yoonam di dox di liggéey ngay dem. di complot ak ay nit di ko yàqal. di ci def sa xaalis. Mm-hmm. am na ñuy def loolu. Mm-hmm. waaw muy iñaan daal. Mm-hmm. lii jat la boo xamante ne képp koo xamante ne dinaa ko wax ba mu leer ku ko dégg nanga ko jéem a mokkalal sa bopp nit day jéem a am lu mu xam loo xamante ne dañ ci mën a dimbali boppam. dëgg la. jat la goo xamante ne boo ko defee juróom-ñaari yoon bala ngaa tëdd nit ki lay tëkk wala nit ki lay fexeel. maanaam bu tëddee dana gént nga war ci gaynde yow mi muy tëkku nga war ci gaynde gaynde gi di ko dàq. <laughs> jat bi doy na waar bu ñëwul jéggalu la maa ngi giñ ci yàlla du am ñetti fan faatuwul. waaw. lii du secret sax bu ñuy joxe ci télé. waaye man ku soxor laa dul yërëm. jàtta yërëm. waaw mm. ku soxor ak kuy jël alalu jàmbur moom du la yërëm. kon dinaa ko joxe ñëpp dégg ko. ayca ñu déglu la. dangay dangay boo jullee gee ba pare ànd ak njàpp. Mhm. dangay def saalaali muhammad waalaali muhammad digoo tas digoo digoo tas. digoo digoo tas. kuma digoo tas. kuma digoo tas. wala këram tas. wala këram tas. wala doomam dee. wala doomam faatu. war naa mbaa gumba. wàcc ci péncum silmaxa war naa mbaam ngumba wàcc ci pénc péncum silmaxa ku dul yàlla bu mën ci man compaan ku dul yàlla bu mën ci man compaan kulluhum fatima bintu yaa rasulullah kulluhum fatima bintu yaa rasulullah loolu ngay wax ñetti yoon bamtuwaatal loolu yaa ustaz saalaali muhammad waalaali muhammad digguwa tas diggoo diggoo tas ku ma diggoo tas wala këram tas wala doomam dee war naa mbaamum gumba wàcc ci péncum silmaxa ku dul yàlla sunu borom bu mu man ci man compaan kulluhum ma bintu yaa rasulullah xam nga mbaam boroom bu ko jëloon yóbbu ko fa sori wala ñu jël ko yóbbu ko fa sori boo ko bàyyee mu ñibbiwaat mm-hmm. te mbaam ku ne xam na ni liggéey du ko jàpp mm-hmm. péncum silmaxa tamit ah, man nga faa wàcc mm-hmm. def fa loo bëgg a def ba demaat te silmaxa yi duñ yëg ni def ko fa moo tax jat gi indaalee war naa mbaa mu ngumba wàcc ci péncum silmaxa compense bi noonu lu mu lu mu mooy bu man ci man dara <laughs> compaan baatu wolof la compaan ba mu waxee compaan sama xel daa dem si compintance waaw moo tax ma compance bi lu ci yow rek la ñuy topp ñaan bi moom doona waar te compance bala ku ko def ah. te jéego salaatu ala nabi wallahi ki la doon tëkku day gént yow nga war ci gaynde di ko dàq salaatu ala nabi c'est-à-dire da ngay julli ci yonent bi. waaw allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. salaatu ala nabi moom nga koy tijjee. Mhm. moom nga koy tëjee. waaye doy na sëkk sëkk sëkk ngànnaay gis nga boo ko defee ñetti yoon sax. Mhm. baax na waaye juróom-ñaari yoon yi daa ëpp doole. maa ngi jiñ ci yàlla boo ko defee sab noonu di nga gis ni ko ni ni la yàlla fay fayule. compense bi du ma mooy mooy baatu olof la mooy du mën ci man dara rek. Ah. ku di yàlla sunu borom du mën ci man. compense waaw doo mën ci man dara. waaw ah bon d'accord mais mais li ma bëggoon laaj moom mooy damaa dégg nga ne. Mhm. xaw ma ku euh, ku ko def di nga dee wala mais est-ce que nit ak nit lu mu mënti def keneen lu mu mënti def war nga mën a souhaiter mu dee. waaw est ce que loolu yàlla wax lislaam waaw xam nga xam nga xam nga suñ borom ne nit ki bu la tooñee soo ko mënta jéggal fayul lu toll ni comme lam la lam la tooñ. waaw mais est ce que am na fayu bu méngoo na dee. waaw ndax xam na ñoo xam ne buñ la mënoon a rey rey la. am na ñoo xam ne buñ sañoon yow pap waaw mais soxor par exemple nit soxoree la mais nit du la soxoree nga ne yàlla na dee. déedéet doon yàlla nga de yàlla na de maanaam moom mi nga xam ne la koy def daa dem di la liggéey liggéey ba day këpp waat ci kaw wala mu këpp ci njabootam. wala mu këpp ci da nga ne par exemple yow moom dafa soxoree. Mhm. mais nit bu fekkee dafa la soxoree est-ce que yow di nga dem di koy def loo xamante ne moom après bi mooy dee. lii yow defoo ko dara yow defoo ko da ngaa aar sa bopp. mais nit ku la soxoree yaa ne par nit koo xam ne la soxoree. Mhm. wa am yoo xamante ne su ko defee. loolu ñetti fan. waaw mhm. su la jéggaluwul day faatu. waaw da ngay dee day su la jéggaluwul day dee day faatu. waaw yow waaw yow liggéey yoo ko xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp. Mhm. mais ay jëxlin waaw yaa ngi dégg. mais ñaan guy man xam nga ma déranger oustaz. ay abo ñaan boo xamante ne day tax nit ki dee. loolu laa xam mais oustaz loolu moom. non kenn du dem di ñaan di ñaana nit ki pour mu dee. ñu hmm. waaye nag sañ nga jëfandikoo loo xamante ne ku la laal laal laalaake. d'accord ku la laal xam ni laal na laalaake. nit ku dee. Hmm? nit ku dee loolu nga bëgg wax. maanaam sañ ngaa aar sa bopp. mais comprendre mais Oustaz li nga bëgg wax assumé ko li nga wax sànq da nga ne am na ñaan goo xam trop ñetti fan Aïcha wax na ko ñetti fan soo ko defee ñaan googu nit ki après. su la baalu voilà su la baalu day dee. mais loolu nga wax moom. waaw xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax muy dee. waaw dee gëm la yoone woon moo këpp ci kawam. non nit ki ku dem di leen liggéey laa wax boo ko defee. waaw liggéey bi ban façon liggéey. liggéey non liggéey na liggéey nga dee liggéey pour daf la soxore pour nga bañ a avancer ça dépend léegi mais mais de toute façon lu ma bëggoon wax Aïcha mooy nit lu mu la mën di def si àdduna mm-hmm. lu mu la mun di fu mu mun di dem bu amul benn proportionnalité boo xam ne na nga koy yéene mu dee loolu moom en ah, islam mais am na ñoo am deew a gën si ñoom dund léegi mm-hmm. Kajoor yow sax nest sa pas ñaari jeex na wala des na des na benn waaw dafa am kuy laaj waaw ñu jeexal ci loolu balaa am kuy laaj mm. jógee nga Pape ci kay naa yaa ngi ci man man temps yaatu woon dinaa la leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa am na ñoo am dee moo gën ci ñoom ndax lu lu gën a dund di gën a di di gën a yóbbu seen bopp sawara mm. non xam quoi yaa ngi dégg mm-hmm. euh, kii laaj dafa am lu tolloog ñaar fukki personne ak lu lu topp ñuy laaj ñuy laaj ci wàllu sëy yu yëngatu mm-hmm. wala ngoro goo xamante ne dem na bay sotti am ku nekk ca biir kër ga yàqu ko mhm. sëy boo xam dem na bay neex benn parent bi bañ cee ànd wala magam góor bañ cee ànd wala am mbokkam mu ko yàq léegi loolu gars yi dañ ma koy laaj chaque jour di ma envoyé ay vocal di ma ko laaj ama sëñ bi loolu doo ci joxe man ngóor a keng bi lañ may sonale xam naa yooyu moom nañ ko def ay thème spécial waaw loolu man sax wàllu kii bi soxnaay sax mhm. am na ci loo xamante ne sëy bu nu bañ mu am mhm. sëy bu nu bañ mu am te nga bëgg sëy bi am sëy bu nu bañ mu am wala mu am ba pare ñu yàq ko te nu xool sëy bi xam ne sëy bi mën naa am ñaari ñi ànd nan suñ ko defee sëy bi dana am te ña bañoon dañuy bëgg par waaw waaye nag loolu secret boobu su ma ko waxoon ku ne mën na koo def ku jàng mhm. waaye am na ñoo xamante ne mën nañ ciy foye doomu aadama mën nañ ciy foye doomi jàmbur ndax ndax noo bugg yamax ci ñaari garab yu la du koy def te ñaari garab yoo yoo fekk ñuy bombante ngay xas xas moomu ngay jël fa ñuy bombante mooy ànd ak liggéey bi. <laughs> bombante kay. <laughs> léeg nga gis ci àll bi ñaari garab yu dendee di def nii di joow di laalante. Ah. non man dama ma dara wala diw ma woo de. su ko defee su ko defee. <laughs> bombante loolu su ma ko expliqué woon wax ni muy demee kajoor maanaam damay bañ xale yi farantu nga xam ni bu la neexee kon nga def ko doomu jàmbur fooye ko bàyyi ko. dëgg la waaye ki nga xam ne nag xam naa ni farataa ko tax a jóg mhm. dinaa ko jox euh, ndéwéneel gi ma leen di jox nag xam naa fi laay terminé du ma ko joxe ci télé bi mhm, ëpp naa joxe man nopp mosuma koo joxe ci télé ñëw ci ndéwéneel bi mhm. ndéwéneel gi day ndéwéneel goo xamante ne képp koo xam ne bëgg ngaa tàggook ñàkk bëgg a tàggoog tumuranke bëgg a tàggoog rafle bëgg a soof. Mhm. waaw. Mhm. lii secret ba sërif la maa ngi siyaaree mbokk sërif yépp mhm. secret bi soxna Aysa mu ngi jóge ci Seex Sidaati ay dara Seex Sidaati moom sosu ko. Aboubacar mi nga xam ni moo njëkk a doon bi te sëñ Tuubaa naan Aboubacar Siddiqu su sidqi wal wafaa rafiiqul nabiyul Mustafaa xaara anbahu moo ko sos mais Cheikh yi moo ko moo moo ko génne sërif yu bari di ko jëfandikoo di toog fi nu toog suñu boroom di leen defal ay taraanga ku ne xam na seeni taraanga ak ni ni man daraja ji leen yàlla defal waaw lii secret sërif la képp ku bëgg a tàggoog rafle mm-hmm. ak ñàkk mm-hmm. na ko jëfandikoo dafa wax ni faidatu njariñu la sirru muy secret fiddatu mooy mooy firi xaalis dangay bind allahu waliyu latif allahu waliyu latif mm-hmm. nga bind ko 241 soo ko bindee 241 nga boole kook ngun-ngun ngun-ngun xam nga ngun-ngun mm-hmm. mooy ñax am ñax la moo xam dañ koy buddi day mm-hmm. ànd ak attaaya sax dañ koy jaay moom naanaan ngun-ngun wala mm. ngun-ngun moom da jël bu la neexee nga dëbb ko bàyyi ba mu wow léegi allahu waliyu latif nga bind 41 moom nga ciy dugal sungu sungu fu ngun ngun nga ciy def soo ko soo ko defee nga sangoo ko mm-hmm. soo koy sangoo nag mën naa doon saafara soo xam ne du gaaw a jeex soo koy sangoo ngay liggéey tamit allahu waliyu latifu 141 bis bu nekk nga di ko werd mm-hmm. loolu képp ku ko def yejjiidu di nga am fiddatu xaalis kasiratan bu bari. 241. Mhm. boo koy werd fekk mhm. yaa ngi ko yaa ngi sangoo saafara si. jërëjëf yaa sërif la boo xamante ne ku ko def daal yàlla mën naa dogal nga tàqali ko. ñàkk jërëjëf jërëjëf waxtu wi dab nañu jaajëfal nañ la ndëwaneel bi am na solo waaye waxtaan wi cam am na solo. am na solo ñu bàyyi la nga tàggatoo rapidement ak mbokk yi bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi. waaw xanaa di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di wax ni secret yooyu ñu joxe. képp koo xamante ne da nga cee gën a bëgg ay leeral. Mhm. da ngay woote ci 78 530 69 81 wala nga woote ci 76 883 18 76. su ma jàppul yàlla mën naa dogal nga jot Fawzeyni borom secret yi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi nuyu sama ñaari soxna yi ñu ngi tuubaa di ma seetaan te ay seex lan. Mm. waa li jafe li jafe ci góor ñi yàlla na toog ko góor ñi man daf ma woo a toowul. jërëjëf man samay ñaari ñoo wax Ndeye muy Ndeye Ndiaye Ndeye Fatou Ndiaye di sëriñ sëñ na Diouf Lambaye ak soxna Marème Naar. ah d'accord jërëjëf yaa Oustaz jaajëfal nañ la bu baax a baax euh, Keyna merci beaucoup. bàyyil Pape mi ngi tàmbali si plateau bi. jaajëfal ah, naa la à demain ma sant ñëpp di leen gërëm ci téléspectateur à demain jël maandu di woo ko xeeñoo ko parfum woo ko merci beaucoup merci merci à toute l'équipe matinale permettez-moi juste me remercier Michael Coiffure Ousseynou euh, il est joignable 77 euh, 641 30 87 euh, Michael mu ngi nekkee fële ca Sacré-Cœur 3 avant Liska maa ngi koy remercier bu baax a baax sama partenaire merci Michael euh, jaajëfal leen jox leen dig daje ba demain incha allah 10h ngeen am seen flash d'information 11h vous aurez Sista Maria et sa team dans la mi-journée de l'avant-première foofee itam euh, dañuy gën a yaatal li nga xamante ni moo di actualité bi quant à l'équipe matinale jox leen dig daje ba demain et ne zappez surtout pas restez sur la 7TV jaa ngeen jëf